Kata juma ya ngoog nyai yi ñooy tabaxal ñooy tabax juma ñoom mun taxaayeeg juma gay gaa yi la yaa juma tabaxkatu juma bu mbay Sy Mansour wootee ne dafa soxla 4 milliards ñi ñoy génnee xaaliss joxé def ci jumaa yi bu takusan joté timis jot tisba a ajjuma jot ñam ñoy wote ci jakk yi ñan ñoo financé jakk yi dom raam yaangi ni wa ahlu ahlu shaytan ñi ngi ni ñi ngi ni dé ñoy ñew ñoy dem ci barba ba ko dem ci boîte bi feesal ko bu wéranté amé sen journaliste yi génn commencé ŋàññ ñi dem ci Ahlu Ahlu Ahlu ahlu ahlu ki ibadur Rahman waa ahlu kii nu mu tuddati ah, ahlu sunna ñoom ñooy ubbi seen ngaam yi ahlu sunna fii ahlu sunna amu fi de fii ana ahlu sunna anañu anañu ana waa ahlu sunna tarixa yi kaay leen tasawuf kaay ana waa ahlu sunna ñi ñooy tabax seen jumaa yi tasawufa nga ñii ñooy tabax jumaa wa ahlu tasawuf yi ñii ñoo yore milliards yi milliards réew mi ñii ñoo ko yor gars yi waa ahlu taxa tasawuf yaa nga xaaral sol sama yére bi sax xaaral xaaral ma ñëw xaaral ma dem parce que xam naa ne léegi ñu ñëw ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw na ñëw leen tasawuf ñëw leen tas dëkk bi te kenn du ko wax nag ñëw ñëw leen ñëw waa lu ngeen di ragal ñëw criminalisation ngor jigéen seen sëriñ si anañu yéena moom dëkk bi réew mi bamba ko moom réew mi alaaji maalika ko moom réew mi baay ñasa ko moom réew mi baay laaya ko moom réew mi baay taala ko moom waa criminalisation ngor jigéen kan moo ciy jël responsabilité bi newoon naa leen yàlla du nit da leen di bës ba ci miir bi comme ni ngeen ñu def xam nga na ngeen ñu njatt ci miir bi amatuñ fuñ noyé ñu génn réew tay nak dinañ leen ñak ci mir bi ana mbay semence ana muntaka ana mamba ma ci ñam way way génn leen ngir yalla criminalisation ngor jigen bu leen baye ababakar mbuk kessa ci mbedd mi ak ñom damboj way saran leen ñu ngir yalla li seen responsabilité la way dibal leen ci li ah dibal leen ci li way da nga xol li Ce qui fait qu'on a transformé même nos, habitudes alimentaires. Aujourd'hui, les Sénégalais pensent que c'est leur culture de manger du riz, alors que c'est une fabrication du colonialisme. Ce n'était pas notre culture du tout. C'est tout à fait récent que euh, notre culture soit le riz. D'ailleurs, en passant, la lutte avec frappe aussi. C'est du colonialisme. Vous savez, c'était un colon...

loolu du woon question bu ñu bu ñu bu ñu war a wax sax parce que réew buñ ñu ne. Ah. Sëñ Touba fa la tëdd maam El Hadj Malick. Hmm, bu Kunta Ndiassane waruñu toog sax di poser wu cette question. waaw. Ah. suñu suñu suñu suñu suñu iman des na daal maanaam. ñun la wala ñoom. dama cee dama cee boole ñëpp xam nga bu ma ne ñun moom xam nga ñun boog xam nga Sénégal niñ ko mooñaale xam nga dañoo yàgg a wax euh, kilifa diine. kersa gi dang leen koy jagleel ñoom parce que boo ci amee taxawaay xoolal yow sa taxawaay bi nga am jamono ji ñu ngi la ciy saaga di la wax yenn yi xoolal ak na toon ci mel xam nga comme ñoom ñoom ñoo jiitu jiital depuis des des des des des des siècles je veux dire des années ñoom ñoo waroon am taxawaay boobu ba tey ji ci fi toll waaw mais mais moment bi actuellement ni tembe tembe tembe ñun dang ñu ciy daal di génnee na le parce que buñu waxé xalé yi nañu seen mam lu mu def ñom la seen mam def kon xex bi seen xex la ñom ñom la def xex la non non xam nga xam nga simay waxé waxee nit man ko naa bu baax de mais simay waxé moy xam nga ñom tay ji ni ñom seen mam lañu wax mais xam nga tay ji seen mam mënul a mënul a exister te ñun euh, nangu nanguluñ leen woon lolu dégg fi may waxé uh-huh. moo motax ma fofu euh pour man wax ji amul sax euh, li daam bu doon laayam dafa war a nekk parce que nekk gi mooy xoolal këru këru tarixa bu ne da nga war a war a woote conférence de presse comme ni ngay def bu coo amee nga wax mu leer def marche nga def marche pour man loolu la i ci kanam réwli bët grand jaajëf jaajëf mais maa lay maa lay mais sàcc ne Sénégal doy na waar grand waa axlu tasawuf la de tasawuf la de sàcc bi yëpp ñoom la kan moo sàccati. dafa kan moo sàcc en yi wax. en une semaine. kan moo sàcc kan moo sàcc. ñi sàcc mooy mooy mooy ñu ñu làq rek waa ci semaine bi turu kan moo siiw ci kaw. Samuel Sarr. Samuel Sarr waa Touba la. waa yàlla yàlla sàmm yow xam naa nañ déggante ci kanam. waaw d'accord incha allah. daanaka jël ci suuf ñu am yu ñu yu ñu yu ñu éclaircir incha allah. jaajëf jaajëf. yal na yàlla sàmm jaajëf ñi ji. jaajëf. ayca ayca ayca ayca ayca. ayca ayca ayca ñëw leen ñëw leen ñëw leen. ku am saaga ñëwal allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Eh, jàmbaar ñu ngi lay siyaar. waa criminalisation ngóor jigéen ñana ko moom. waaw dañoo am dañoo am lu ñu naqari nag wax dëgg yàlla criminalisation bi eh, ñi si waroon a jiitu tey mooy kilifa diine yi. <laughs> dégg uh-huh. tey ñoom ñoo toog tey toog fële na tey di seetaan ñi nga xamante ne ni ay xale lañ di si dox di ci wax alors que ñoom ñoo waroon a jiitu ñëpp topp seen ginnaaw tey ñu ngi ne tekk noppi kon euh, war nañu leeral lan moo tax ñu noppi ci loolu. nit ñi il faut que ñu yeewu xam nga lu tax mu ñu war a yeewu. Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Omar Foutiou daal ak maanaam ñi ñuy wax wali yàlla yi fi tey tey tey période bi ñu toll ni tey bu ñu ñëwaatoon ci kaw suuf danañu duma ay nit ba suba ba ngoon jot. parce que bëri na ñoo xamante dañ leen ni mbubboo mais gëmuñu leen. askan wi nag fu ne nii dañoo war a yeewu yeewu bi mooy il faut que ñu xam ne. sunu sunu sunu ëllëg ñun ñoo ko war a mun a téyel suñu bopp ñu bañ a ñu bañ a laqatu ci kenn ñii lañuy nax nit ñi rek seen intérêt rek lañ fi nekkee nekkee wuñ fi askan wi de képp ko topp seen ginnaaw ñu ngi lay tardel waaw man loolu laa amoon lu ma ciy wax quoi. jaajëf nit ñi yeewu. jaajëf nag seen xel yi day yeewu xam xam ne fu ñu fu ñu teg seen tànk yi di topp nit ñi di topp ñi nga xamante ni nii gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi seen intérêt rek lañ gëm parce que criminalisation ngóor jigéen kilifa yi ñoo si waroon a jiitu xale yi topp seen ginnaaw tey ñu ngi ne la ne tekk noppi tey kenn ci ñoom waxul. jaajëf. aja Malick mooy boo xam ne mooy boo xam ni. du ñu du ñu nëbb lu yàlla bëgg. du ñu nëbb lu yàlla bëgg. du ñu ca topp bànneexu kenn du ñu ca topp bànneexu kenn. du ñu ca seet ku ñu mere. seet ku leen mere. du ñu seet taalibe tey tey seen saaku ceeb. yooyu yëpp yooyu la yëpp. su fekkee ne su fekkee ne. moo tax moo tax. seen xol du sedd seen xol du sedd ci ñoom. bu leen fi ñëwee bu leen ku fi ñëw fii ku fi dikk. yàlla rek yàlla rek. fab leen seen i xaalis fab leen seen i xaalis. seen i ceeb lépp seen i kër. allo. waa Jiji. waa jàmbaar ñu ngi lay ziar. ñu ngi ziar wér naka moom maa am jàmm. waaw ñaxtu rek ama ma jàmm kenn damay ñaxtu. waaw jàmm moom amul jàmm moom amul <laughs> mais mais mais man dama bëggoon wax dama bëggoon wax quoi gannaaw mu leen ñëw dama bëggoon wax tamit ñuy souligner benn affaire lu am solo la lu am solo la Sénégal te bokk na ci li nga xam ni mooy may doole sax mooy sëriñ yi sëriñ sëriñ bi parce que du ñay sëriñ muy maanaam géwal bon du ma parce que man man mii di wax yow sax géwal laa mooy maanaam géwal yi ak ñi naan communicateur traditionnel parce que ak a netoon dama koy dégg mu naan mara mara euh, politico maraboutique Euh, mais ñooñu noonu ak daf ci war a boole les communicateur traditionnels parce que ñooñu noonu ñoo yàq Sénégal waaw ah, ñooñ ñoo yàq Sénégal te ñooñ ñu war a waxal la ñooñ ñooñ ñoo ñooñ ñoo war a gën a mën a jar a waxal sax parce que gars yi ñoom même yenn sëriñ yi buñ bëggee am tur si ñooñ dañuy daw làqatu ak ñenn ñi ñooñ ñu war a waxal la waaw parce que ñooñ ñooy yàq Sénégal imbécile yooyu

yonent bi ne tumuranke googu mu amoon nag. yonent bi ne diine tumuranke googu mu amoon nag. danañu dem ba mu tumuranke. danañu dem a dem ba mu tumuranke. ak si nañ ci ak si nañ ci nag. boo xamee ni. soo xamee ni. kenn ñemewul wax ci diine dara. kenn ñemewul wax ci diine dara le. ñemewoo dib sëriñ ñemewoo sax jàng benn aya alquran. mais dib sëriñ ñemewoo sax jàng benn aya alquran na ko yàlla bëggee firi ko na mu ko wax. ñemewoo wax benn hadis. ñemewoo wax benn hadis. na ko yàlla bëgg. soo ko waxee. soo ko waxee. ñu ne dafa bañ. ñu ne dafa bañ. wala dafay kontaan wala dafay kontaan bi tax tax. kenn dootu wax dëgg kenn dootu wax dëgg kenn dootu ne yàlla ne yonent bi yonent bi ne naka diine naka diine yi def kon te kat diine du torox kon ñun jullit ñooy torox diine kat moom du tax sax mu toroxee neen ñun jullit yi bu àggee foofu nooy torox yàlla moo amee diine neen yàlla amee diine ku ko deful it ku ko deful yàlla tukkalagul ak yàlla tukkalagul adduna bi du ñàkk moos du ñàkk moos la yonent bi waxoon la yonent bi waxoon laa tazaalu taifatun min ummati zahirina ala alxaqi laa du dañ di du dañ di di am ay kuréel allo oui allo waaw sa ngi ziar bu baax ñu ngi delloo ziar di rafetlu seen taxawaay seen combat waaw di participer ci business bi am noonu Uh-huh. waaw leen wax na peut-être li ngeen di xeex ñëpp a ko bëgg a xeex mais porte combat bi il faut que nit mel ni daal ngeen xamante ne ngeen jël seen live jël seen lépp tayle ko ngir njëriñu Sénégal ëllëg mais Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne vraiment boo bëggee dëgg-dëgg xam nga neexuñu xeexal daal xeex bi mooy yëpp da gas. pour ñu ñëpp jëriñoo fukk ñëw di suul tey nga ñëw wax dëgg ba ñëpp xam ne lii dëgg la benn doom raam jóge fële teg ci tànkam bëgg la gëmloo ne lii du dëgg daal mais combat bi moom ni ngeen ko mënee vraiment yàgg naa ko suivre et puis di leen wax ne lii ngeen wax nii nii di xeex nii yàlla moo nattu nit ñi xam nga nit ñi dañoo jëloon seen lépp wékk ko ci ay sëriñ ne ñoom ñooy defar seen àjjana ñii yàlla lañ ci nekkal ñii kii comme yàlla nag moom moo ne góor jigéen dafa araam ba yàlla nattuñu ñu am ay sénégalais yu porté volonté indi xeexu pour góor jigéen jóge fi léegi ñu ko waroon gën a porté du du sax ñun mais ñoom ñi nga xamante ne nit ñi ñooy leen di bayal seen i tool ñooy jël seen alal di leen jox ñooy jël seen doole di leen jox bu xeex jotee ñu war leen xeexal parce que dañoo yaakaar ci ñoom àjjana mais képp ku ci. xeex nañu nañu di tudd xoolal nañu di tudd responsabilité yi parce que bu ñu waree lekk suñu alal. gis nga ba ñu waree dugal ci biir kër yi bañu xex ak Macky Sall ma eh, eh, sëñ Muntaxa moo génn ne wax na ci turu khalif général yépp kon xexu gor jigen bi angola pe, moo eh, Bas Abdou Khadar ak sëriñ ñu nekk Touba yépp Mbaye Si Mansour mo enveloppé Tiwaone Maay Niass mo enveloppé Kaola Boy Doudou mo enveloppé Niassène kon ñom ñop nañu tuddu seen tour yi Mbaye Si Muntaxa nangal nangal nañu tuddu seen tour yi ñom la dé seen xex la si si léegi nag yàlla da leen a nattu. mooy yàlla da leen mettre. waaw ñoom lii nii ñu dugal. danañ ko xeex wala dinañ ci xeex. lii moom buñ ci daanoo mais na leen ñëpp bàyyi et na leen ñëpp boycotté. Ah. te xam ne amatul sëriñ boo bëggee dégg-dëgg. Ah. am waaye bu wax benn wax bu am importance. Ah. nit ñu baax nit ñu baax ñi deewoon màkk yëpp tëdd fa. waa màkk di mooy nekk ci naan sàngara nekk ci kii yàlla na leen a seetaan def leen ñu nekk pays pauvre. mais bi ñu def ba màkk commencé jubal di ko teg ci yoon yàlla génn fa pétrole Sénégal tamit loolu la man Sénégal yi mooy nit ñu baax ñi jógee nañ fa te fa maam Abdou jógee sëñ Saliou jógee fa ñaari ñooñu ngay gis ne nit ku baax desatul Sénégal ñi fi nekk ñëpp ay nante lañu rek comme man lijjante muy dox ñoo ñu gën a bëgg xale bu jigéen ñoo ñooñu gën a bëgg kër bu rafet ñoo ñu gën a bëgg lu baax bu fekkee nag yow mi ma war a yaakaar sa ëllëg yaa ma ci mën a ram fii ñun man ma wara di def lu bot nga war ma cey jek te fekk yow nga gën ma bëgg lool mais waratuma xool loolu waratuma la top man de duma top kenn franchement aw ma sëriñ aw ma wasila aw ma dara may sama serigne bop sama juróomi waxtu yi ma yàlla santaane bu mu rëccee vraiment bu suba ma dabu ko kenn nak mënul ne day jaamu yalla ni mu waré mais nit ñi ño yew otina sénégalais billahi wallahi taala dama la koy watal ci aduna sénégalais bu bëgg a muus kenn gënu ko muus ci aduna mais sénégalais yi dañoo bëgg dof dof lu li ñu nekkee ñoo ko tey ñoom xam nañ ne li ñu nekkee du dëgg ñoo la ko gën a xam mais bëgg fu ñuy làqu ak bëgg business la mbirum sëriñ moom boo bëggee dégg-dégg business bu ngand moo ci nekk kenn bëggul nag sa business daal mais ñoom ñi nga xamante ne yow yaa ngi France man nekkuma Sénégal maa ngi ci beneen dëkk mais ñun bu ñu ñëwee suñu xel yi nu muy ubbeekoo par rapport ak ñële seen xel yi nu muy tejo da nga nan est ce ñi ñii ñun ak ñoom ñoo bok fiñ ñu est ce que ñun ak ñoom ñoo bok xel est ce tamit neen la parce que yow nga japp nek nit wara a juddu war a tekki war a dimbali say waajur wala jàppale sa famille ñun note la note bo xamante yow yow wo wax serigne bi sax mo la gëna sa bop mais imaginer waju ju di prier prier ci kara mais wàtte sa bop du tol non fu mu am ci aduna prier bay mir. tel micro bi mo won la kenn tel tel tel ligne bi mo won la kenn tel mi ligne bi teel ligne bi teel ligne bi teel ligne bi ko kañ moom kenn du ko buñu bëgguñu ko ñu yóbbu kër yaama di tax eh? waaye bu Cheikh Ahmad Bamba ne cas daaw di bind rek arasa gi jaayi mu ne isaa katabtum tasa arsullahi wa sabahat malaikul ilahi isaa katabtum tasa arsullahi yeggali man yeggali lii moo ñu xañ suñu bi yàggali. waaw waaw dam lay jox exemple rek man par exemple Sénégal laa juddoo mais ci dëkk tubaab yi laa yaram mais parfois sax boo bëggee dégg-dégg da ngay rus boo xoolee diine ni koy naar yi di doxalee ak ñun Sénégal lu ñuy doxalee diine ji ñun yor man daal boo bëggee dégg-dégg sama waaj diine amatu fa Sénégal moom xamul fa am diine business ni koy suñu waajoo ji di waxee ak na ton moom nag li tax moom par exemple ay argument am di neex di di di jar a jàpp mooy da koy teg ci leer xeexam dafa dëggu. dafa am fulla daf ci am fayda du fi nekk di ko kekkantoo da koy dox wax ci dëgg te loolu la yàlla bëgg ginnaaw yàlla dee moo fi am dëgg bu jotee dañ koy wax ñii ñu topp ñii ñu nag ñooma yem ci àdduna dañuy nax ku ci nangu nag ñu nax la mais sa bopp nga koy def jaajëf rafet na ok combat li may wax daal sénégalais mooy combat bi combat diine gi combat lislaam la ñi ñu ko war a jiital ñiy xeex di woote ne ñoom ñoo fi nekk giir diine gi xeex bi seen xeex la xeex leen ko gañe ko ñu ñuy topp leen xeex ngeen ko gañe woo leen ko mais nit ñi bàyyi leen ku nekk jël sa yoonu bopp yàlla ñëpp la fi nekkal. maa la ko wasalaam. jaajëf léegi nag xoolal waa ji nim ñu yabe ndax sëriñ si xoolal waa ji nim ñu yabe rek xoolal waa ji nim ñu yabe. pétrole bi fañ koy jukkee dafa sori si biir géej gaw ma ne am na benn gaal buy dem à cent kilomètres perpendiculairement à la côte maanaam ci digg géej en pleine mer à cent kilomètres. pour di fa napp ay jën ngeen dem ci plateau continental li dafa sore ci biir donc il faut pas que aussi ñi nga xam ne ñooy dox auprès des communautés di créer ay problèmes yo xam amul di jaxase sen xel yi loolu aussi jaaduwul. gis nga li mu ñu def ni xara xam naa li may def boobi laa lay indil mu dëgg sanday ba nga ana reer boobi Bobby Bobby Bobby, tu es où Bobby Bobby Tu es où Dans le garage ou dans la chambre Oh, Bobby Bobby euh, Mais, c'est pas possible Il est où, Bobby Bobby, parle-moi de Mais il t'a mis ta de xam leen ni tamit lépp lu am biir Sénégal yéen la parce que bëggu leen wax tamit Macky Sall lu dëgg Sénégal la ñu dëgg Sénégal la ñu dëgg parce que Macky Sall mu ngi yëkkati ay malet di leen jox dañu wax te dëgg de di boom di bumi Sénégal c'est pour tous les Sénégalais Sénégal pour Sénégalais yépp la dictature yi ñuy doon gis yenn dëkk africain yi muy am ñuy boom di bumi duñu ko nangu biir Sénégal duñu ko nangu jamais de la vie salaamaaleykum allo salaamaaleykum. mbokk ñu ngi lay jaar. waaw si géej gi la. maa ngi lay jaar. ah ñu lay ñu lay lay ligne bi na. bon man dama participer rek bon ngi États-Unis aussi. ñu lay donc euh, voilà. Euh, gis mbir bi mbir bi du yomb parce que dafa am lu laxasu lu histoire nga xam nu tëkk di jamono di doxee da ngay dem nga xool histoire. Mhm. gis ngeen mag ñi euh, ñi nga xam na ne boobu jaamu yàlla moo leen taxoon a jóg ñoom seen maam ñi ñi ñuy topp. Mhm. soo gisoon ñu indi seen gàmmu yu bëri yi yëpp parce que ñun Sénégal dañoo fecc ak foog moom leen bëggoon léegi pour ñu sensibiliser leen ñu xëcc leen si mbiru gàmmu yi pour changer leen léegi esprit boobu allo. waaw yow nag la yow rek la ñuy voilà esprit boobu nag moom moo change moom moo delluwaat xam-xam bi nga xam ne mag ñi moom lañ fa dugaloon moom la yàlla rocci delloowaat leen li nga xam ne fi mu nekk nii moom moo nekkoon initial bi looluy problème gi nga xale yu bëri tey di dem gàmmu day leen xiifloo ba booy amatuñ lu ñu lekk moo tax nag ñu bëri yi ngay gis si gàmmu yëpp lekk yi moo yóbbu xale yi foofu gàmmu yi xale yi suñ ñëwee soo leen ne gàmmu bi neex na ñu la ah nag yi kañ yi pomi banaana yi doo fa dégg yàlla ñaari ñu nekk ñaar ñaari ñu nekk noonu ñetteel bi Ablaye Wade moo ñu tooñ moom moo dem bitim réew gis fa ay samba booy jël leen ci gouvernement bi indi leen ñu ñu ñu nommé leen ñi ay ingénieur du n'importe quoi daf fekk ne ñu xamuñu tous kan moom moo euh, nu mu tuddati daf fekk ne am na ñoo ñëw ñëw Sénégal man dinaa la wax nga xa dégg ma man maa ngi liggéey Rockefeller Center yaa ngi dégg. salaire Sénégal mënu maa fay. Sénégal tey suñ ma woo du ma fa ñëw. je fais j'ai plus de deux cent millions. Sénégal man mënuñu maa fay. donc yooyu yëpp dafa laxasoo Sénégal. tooñ bi dafa ëpp Sénégal. Sénégal pour ñu defaraat ko. il faut que système bi changé ñu ko Sonko waxee. tant que amul Sénégal toujours du du du euh, euh, ni koy waxee fii euh, du changé. waaw doo ñu dimbali waaw sa waay sa waay. waaw sa waay defal ndànk waaw sa defal ndànk. yaa ma may dégg. bu baax. waa doo ñu dimbali nag comme yaa ngi ak plus de 200 millions kay dimbali ñu ñun xeex bi xaalis lañ soxla pour xeex ak ñoom. waaw man nag maa ngi participer. yooyu yooyu Sonko di kii. Ah. maa ngi participer. waaw non booy souterrain booy defan Sénégal defal ko ma wax la. Sénégal defal naa ko wax la. mois daaw dugal naa fa plus de 50 millions. tey dama yàqule. parce que booy yi da ngay jël xaalis nga jox leen au lieu ñu dem liggéeyi booy yi ñu liggéey dañuy yàq sa alal ba pare ñëw na toog di xoole. waa déet